masawa is jaa yamtaaru dana def nangam ëllëg dana tukki ëllëg dana ak lu mën a doon rek waaw na ca boole yàlla moo tax mbokk yi nañu jël suñu programme ñu boole ci yàlla crise bu metti bi àdduna bi di daj min aw bi atin wa amradin wa min azamatin wa hazatin anifa tahuzu laalama bi asrihi sharqan wa garban naatijatun wa naajimatun an iraadina an manhaji rabbil alamina wa manhaji ibadihi almursalin problème yi nga xam ne moom la ñuy dund tey ci àdduna bi ba ci feebar bi nga xam ne tey mi ngi yëngal àdduna bi Chine la tàmbule tey d'après renseignement yi mujj am tey ci bëccëg dem na ba làmb 60 pays ci àdduna bi booyo boo nag ñu tàllal yàlla suñu loxo mu bañ a agsi Afrique ndax suñu système sanitaire dëggalul dëggal guñ mën a defee mu waajaxa xeeti aw bi ay yu mel noonu bu dee ci réew yi nga xam ne sax am nañu doole seen système sanitaire dëgër na lu bon bon moo waaye ñun ñii nga xam ne la yàlla xam doy na nañ ñaan yàlla rek te jéem a yeesal tuub nag suñu digganteeg suñu boroom te jéem a jukkiku minal fawaaxishi te jéem a jukki jukkiku minal fawaaxishi sallallahu alayhi wa sallama ci xadis boo xam ne sayiduna abdullahi ibnu omar moo ko soloo nee na aqbala alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fa qaal yaa machara almuhaajirina xisaalun xams aw xamsun ida btuliitum bihin wa audu billahi an tudrikuhun lam tadhar alfaxishatu fi qawmin xatta yuclinu sallallahu alayhi wa sallam daf ne am na juróomi jikko yoo xam ne bu feeñee na leen wóor ne lu leen dal ba yóbboo ngeen ngeen waaj te xam ne yàlla mi ngi ci seen kaw bi ci njëkk moo di mooy yàlla bi ñuy tudde njaaloo nga xam ne góor xamatul jigéen ju mu takk jigéen xamatul góor gu ko takk danga gis ko am ñetti soxna am ñeenti soxna bàyyi leen fa dem di mooy yàlla nga gis jigéen joo xam ne wóor ne ko ne mi ngi ci biir bu mu sëy bàyyi fa boroom këram dem di ànd ak góor gu ko takkul nee na duñ ca yam da gis koy mooy yàlla ba noppi yàlla suturaal ko mu mënoona a suturaal boppam mu wàññeeku dem di ko biral di ko feeñal di ko tiitaroo di ko puukarewoo ñu koy sargal nee na loolu bu amee na leen wóor ne feebar bi ñuy wax mbas walla ay épidémie ay aw bi ay yoo xam ne dana tasaaroo fee xeeti feebar la yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam nee na seen mbokk yi leen fi jiitu woon sax duñ ko xam xam ngeen ne feebar bi am ca Chine feebar boo xam ne mën naa nekk ci yow di la ronger te doo ko yëg mën naa nekk ak yow fukki fan ak juróom nekk ak yow fanweeri fan ñu defee ne dalu la mu jékki-jékki rek buy manifesté wu ak bi mu lay faagaagal benn lay doon ndax day fekk yàq na li mu yàq ba noppi. kon toll nañ ci jamono boo xam ne mbokk yi. nañu daw dellu ci yàlla jot na sëkk nag jot na sëkk tuub wàññi pom yi wàññi col gu bon gi eh, wallahi da ngay dox ci mbedd mi ba ci yàgg da ngay tiit te mbokk yi yàlla fowul de ndegam boroom kër ci biir këram mooy am fulla bu toll ne kenn du ma yaakaar ba noppi di ma yépp li nga bëgg moom ngay wax sa soxna wax ko say doom buñ la joxul cër sax nga ne gis sa bopp waxantuma la yàlla mi la bind moom la moom lépp kon jaadu na rafet na jekk na ñun ñëpp ñu tuub ya yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuuxa asa rabbukum an yukaffira ankum sayiaatikum wa yudxilakum jannatin tajri min taxtiha al anhaar yowma laa yuxzi llahu nabi amul ku dul def bàkkaar bàkkaar moom mucc ci yombul te am na ci xeeti bàkkaar yoo xam ne dafay gàttal fan am na ci xeeti bàkkaar yoo xam ne dafay téye wërsëg am na ci xeeti bàkkaar yoo xam ne dafay indi ay feebar moo tax sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne maa leen gën a ragal yàlla mais terewul bis bu nekk rek am na loo xam ne mi ngi may song pour bëgg maa yàqal sama mission moo tax danaa lu soixante di fois wa fi riwaay wa sallama mënta def bàkkaar maasuum la waaw maasuum la mënta def bàkkaar waaw bi muy nekk ndaw bu xale yi masaan a génn ci tookooru màkka yi di fo buñ ko wooyee ne ko nañ dem foy daf naan ana lam uxlaq li hada bi ma yàlla di bind binduma woon pour may fo boobu xam na ne mission bu rëy mi ngi koy xaar te moo di defar àdduna tabax ay góor yu yiw tabax penc mu set penc moo xam ne jikko yi dana tedd nit ñi danañ mën a ànd ànd bu rafet nit ñi danañu dëggu bàyyi fen nit ñi danañu sellal bàyyi tricher nit ki lu muy wax mu nekk lu mu gëm waaw nit ñi danañu bàyyi wuruj nit ñi danañu bàyyi wagajaane nit ñi danañu bàyyi tappale ak mboolem xeeti jikko yu ñaaw yi nga xam ne penc mu mu tasaaroo te jëlewuñ ko fa moomu penc bu ñu amoon ay teeni pétrole wala ñu am ay teeni gaz itam mënuñu fexe ba développer ndax lay tax développement am base ba moo fa nekkul. kon mbokk yi man mii di wax ak yéen ñi toog di ma déglu maa ngi leen di ñaan ñu waaj waaj bu bees taq jéem a taxaw ci bunt yàlla. waaw la seen maam Cheikh Al Hadj wax ne man daal ba mu wóore ne man Malick taxaw ci beneen bunt bu dul buntu yàlla di ko fëgg. wala ma fay wax sama soxla wala ma fay am yaakaar ba ma yëgee ne amul njariñ laa fi bàyyi bunt yëpp te taxaw ci buntu yàlla mbokk yi àdduna bi dara neexu fi lu dul yàlla wallahi lu fi waay mën a sex lu dul yàlla bés dana ma sa ñëw nga yàbbi ko nañ teel a jubóog suñu boroom yàlla dafa neex waaw dafa neex da nga koy tàqamtiku di ko yëg waaw muy ànd ak yow ngay jàng alquran même soo xamul li muy wax sax dafa neex nga xam ne wax ji ki ko wax du nit ki ko wax mooy kilifa ñëpp nga ànd ak moom mu lay accompagner di la fóotal sa ruux di la defaral sa xol di la jubbantil sa ay jikko def la ngay nit ku yiw nit ko baax mbokk yi nit nit bu nitewul euh, mook bàyyi ma ñoo bokk wàccuwaay wala bàccu wala bàyyi ma ko tane danaa koy faral di wax nit dana la romb col ga rafet lool nga naw ko bind ba jekk lool kër ga rafet lool oto ba rafet lool waaye fekk na ni mu rafete ci kaw xol ba noonu la rafle ci yéeg yàlla xol ba xol ba xol ba àdduna lekk na ko fo ak musique fecc col-col gu bon bopp neen xeesal greffage bëgg àdduna bëgg gis leen ma rek mooy waaw rek mooy sa jikko ci àdduna jikko bu rafet sa yoon nekku ci yow daal gis leen ma rek naa feeñ nañ ma tudd dégg nga jimaamu eh, yax bu rëy laa bokk di way sama maam ñu lay way di la tagg ngay maye te fekk na booba sa xool dara ci yàlla nekku ci waaw li ma dégg alxaaji tafsir gay di ko wax bu yàggul ci benn gàmmu defe naa moom la de wala kenn Souleymane alxaaji Souleymane ba nañ ma baal mu ne da ngay gis suñu jur yu baax yi toog nee na da nga ciy gis maire boo xam ne bu xew amee mën naa toog di nangu ay sër di jàllale diwa joxe bi diwa joxe bi ñaari waxtu du yëg tànk yu metti waaye bu julli jotee rek mun a jox leen ma chaise toog waaw jox leen ma mën naa yendu ci ci ci ci xew moo xam takk la wala muy ngénte wala lu mu mën a doon mën naa yendu de tànk bi metti nga gis ko muy muy forcé di jóg ak ci yëngal tànk bi du ko yëg waaye bu ci dara desul lu dul jaamu yàlla rek rek mel ne seytaane daf ko jatan